tey nekk bis bi nga xaay bi mooy bis bu ñu jagleel euh, doye di roño tamit tey ñu def ko semaine mondiale tamit euh, semaine boo xaay bi dañ koo fas yéene def ay bis bi yëpp vraiment di sensibiliser nit ñi tamit di wax na feebar bi métti gu métti ci képp koo xaay bi dal na la ah ñu ñu mën koo moytu bu baax a baax a baax nekk feebar bu métti lool ndax képp koo bi dal na la boo amul ñu la taxaw say bokk danañ jeexal say xarit danañ jeexal li nga amoon lépp dina jeex. tamit nit ki su feebaree am ñu ko taxawu ci di ko faj am ñu ko taxawu ci di ko jàppale kon vraiment xelam war naa mën a dal te am nañ docteur yu baax yu ñuy faj. am nañ mbokk yu baax ñuy jàppale am nañ ay partenaires yu baax ñuy jàppale lool na ku nekk Touba di faju yaakaar naa boo amee loolu warulaa mën a jomb kon nag ñun ñi mu dal bëggatu ñoo gis ko mu dal waaye ñi nga xaay bi tamit seen loxo jot na seen ginnaaw nañu ñëw jàppale ñu. Elis bi wax nañ ne gratuite la waaye tamit des na ba tey gratuite bi mooy lal bi kese. lal bi daal boo ñëwee des la jalis ci machine waaye lépp ordonnance boo xam ne bi am nga ko wala analyse wala rajo wala pigir numéro cormal bi ñuy pigiroo mu ñuy dolli dara di jar 11000 francs ñun ñoo ko jëlal suñu bopp transport bi ñuy dem di ñëw rek seer na ci ñun lu gàtt gàtt di nga def 100000 francs ci sa yaram ci weer bi kon nag yaakaar na ba tey metti na tey ko xay bi liggéeyoo defatoo lenn loo am dañ la ko jàppale. Ah, mu ma ànd wàllu askan wi nag dafa nekk mbooloo moo xam ni ay taalibey Serigne Touba yu dëkk fii ci dëkk bi. ñoom ñoo fëskee ne boole seen am-am boole seen doole boole seen jot jëmale ko ci liggéeyal sëñ bi waaye bay seen waaru bopp di ko bay ci ñi nga xam ne dañoo tawat tawat gi ñu tawat nag moom la ñuy wax feebaru raño waaye askan wi boo leen doon wax ñoom jalis lañ gën a xam waaye feebar bi feebaru raño la ni nga xam ne noonu la ci mouvement ànd askan wi di baye waaram mooy dañoo yeewu ci ne tawat la joo xam ni ku mu dal amul lu koy faj loolu ñuy wax jalis nit ñi gën koo xamee ci feebar bi mooy li nga xam ni moom la ñuy def ngir mën a dànkaafu tawat gi. ñoom docteur yi dañuy wax ne c'est un traitement d'attente ñun nag ñu ne comme que feebar la boo xam ne traitement d'attente kese la am te tawat la joo xam ni ku mu dal ku ne la nga yoroon dana dem la say mbokk yoroon dana dem. te kenn mënu koo sàkkul ndax feebar buy coûter plus de cent quatre-vingt-quinze mille par semaine ci jalis bi kese ordonnance ñëwul analyse ñëwul kon tawat la joo xam ni buy ndolloo askan la ñu ne ñun nag kon nañu jóg waxtaan ak suñu askan ci fexe ñu mën a moytu tawat googu ba askanu Sénégal xam ne feebar bii nga xam ne moom mooy feebaru raño nekk na feebar boo xam ni dana la ndolloo ndolloo say mbokk ba pare ndolloo saw askan kon nu ñu mën a def ba moytu ko nañu ko def nañuy déglu médecin yi xam nga buyon yi bu ñu ko dee wax xorom si nga xam ne moo ànd ak buyon yi moo gën a tax ñu di ko wax ak yeneen produit chimique yoo xam ne ñu ngi ci ku ne xam na ni hypertension artérielle xorom moom mooy li ëpp lu koy joxe te su fekkente ne déjà que ne suñu soxna yi bu ñu togg dañuy jël xorom dolli si gejj gi day am xorom yenn saa yi kecax bi am xorom ñu bëgg jëlaat yeneen produit yoo xam ne dafa saf sàpp xorom ñu ko ciy dolli kooku du mën lu dul gën a sabab li nga xam ne mooy hypertension te hypertension day jur li nga xam ne moom mooy feebaru reño parce que suñu buggee instant bi nii euh, faj euh, éradiquer carrément lu ñuy wax insuffisance rénale fii il faut que ñu dem dem si gox goxaan yi dem yéete yee yee maladie wan leen wax leen exactement la mooy feebar bi tant que loolu amul dinañ euh, feebar bi di fi gën a bëri. ñu ne noonu léegi dañuy organiser benn dérouler benn semaine d'action semaine boo xamee ni altine la ba ajuma lépp loo xam ni jàngoro roñoo rek la ñuy wax. Euh, plus particulièrement le jeudi mooy euh, journée mondiale du rein bi dañ koy jagleel benn gox nga xam ni ñëpp foofu la ñuy dem mooy euh, Dakar Pikine pourquoi l'hôpital de de Pikine parce que ñoom moom tamit l'hôpital Pikine dañuy inauguré jour boobu seen centre de dialyse bu bees bi. donc thème mu journée bi mooy les reins en bonne santé partout et pour tous si wolof mooy roñoo fépp ak lépp. donc qu'est-ce que donc su dee bëggu nañ koo euh, traduire mooy képp koo xamee ni am nga problème mu roñoo da ngaa war a am benn bërëb boo xam ne dañ nga euh, dañ laa war a faj. waaw mu ma awa suñ jëlee défi bi di wax ñu ne ñaan ñu yàlla kenn dugg si sant bi donc ça veut dire que donc euh, suñu doon def benn sensibilisation dañaa war a gën a yokkaat encore sensibilisation yi pour au pour mu pour ñu ñu génn si. bi ren dañaa. def benn kii de rupture mooy lenn du ñu fàtte dialysé yu ne yu nekk si biir centre bi. parce que tamit suñu waxee way journée mondiale ñu jël suñu micro di def ay dépistage mais tamit dialysé yu nekk si centre bi tamit il faut ñu réserver leen la part belle. ñu def benn lu ñuy wax majal dialyse majal dialyse mooy lan jël suñu ay leket jël suñu ay t képp koo xamee ni xam nañ ko moom mun nañu dimbale. ñu euh, ñu ñu wax ko suñu problème parce que centre de dialyse bi dañ kaa war a réhabiliter defaraat ko ba mu yees. le problème majeur mooy fii instant bi nii soo ko xaymaa ah, même dans le monde entre trois millions ba sept millions de personnes ñu am problème mu roñoo par an waxuma waxuma Touba waxuma Dakar les journalistes entre trois millions et sept millions de personnes par an annuellement ñu am feebar bi. dañuy gaaw a décédé pourquoi parce que amuñu place pour dialyse wala ñu doon dialyser tamit dem nañ dem nañ ba mënuñu leen greffer donc sa pose le problème d'accessibilité en dialyse liste d'attente bi fii à Touba au début su ko xoolee un tout petit peu euh, à dakaar Dakar Touba rek moo amoon centre jalis donc tous les yu nekk par ci par la ñoom ñëpp dañaa doon ñëw fii à Touba bindu du coup dafa am benn boom mooy y avait plus de 400 personnes yoo xam ne ñoo ngi woon bindu si liste liste Touba rien que de Touba Touba c'est la deuxième euh, ville du Sénégal boobu boobu benn la mais ñu bëri di dañu fa doon bind mais nag depuis l'ouverture euh, des autres centres de dialyse taux bi xaw na wàññeeku pour benn parce que nit ki tamit sa euh, roñoo soo amee problème mooy seggukaayu deret bi su dee deret bi segguñu se segguñu ko normalement posan bi posan bi moo ñëw dem dem dem dem dem ba euh, fat la fat sabaxan donc ñooñu le plus souvent. Euh, ñu bëri dañ si décédé mais am na ñu bëri dañ leen transféré dans les autres centres wala am nañ place dans les autres centres de dialyse moo tax actuellement bu ñu defee toilettage bi actuellement on tourne autour de 132 malades yoo nekk si liste d'attente bi yu néegu nugum dialyse il faut que tamit ñu wax leen yan modalité la ñuy def pour nekk di la di inscrire nit ñi si liste d'attente bi du ñu xaar ba nga nekk exemple si euh, si euh, stade terminal rek ñu bind la képp koo xamee ne ne commencé na am jàngoro réunion bi rek damay ñëw jël kayit ma ne ah dama bindu on sait jamais peut-être ëllëg si biir fekk deux ans trois ans il pour pourrait que mun nga dugg mais au moins loolu tamit genre prévention la peut-être loolu tamit moom tamit moo gën a indi tamit euh, euh, euh, taux taux liste liste d'attente bi.